jàngi naa douze

xaar ma jug toog ci sees bi asalaamaaleykum sama waa ASC bëggee naa leen j'espère que yéen a si jaam bu baax a baax man maa ngi si jàmm maa ngi si salaam xaaral ma ñaanal laa leen xam naa ne sama ñaan am am na solo chaque semaine man dama leen di ñaanal te da ngeen wax amin yaana yàlla defal sutura xéwal a xaalis bu bëree bëri wax leen amin amin <laughs> nee naa leen bu leen bëggee xam li xew Sénégal dugg leen TikTok actualité bu am boo duggee TikTok depuis démb ak barki démb ndaxte Mario ndaxte Mario xool leen xaar ma dugg TikTok dugg naa TikTok ah. lu nekk. ndaxte la ñuy wax violence physique. ndaxte la bi may avorté nekk hôpital. maam dama doon toog sama nit man kase. ndaxte Mario waxatuma. ndaxte Mario. parce que. ndaxte day won nit ñi ni que. ndaxte. je ne ko dama bëggoon nga mel sama papa. juste. saa yi mu delloo ma ne leen woon damay xaar ba pap ndaxte <laughs> nit ku avorté. seet te coolu bëri na xale yu jigéen yaa ngi yàq xale yu góor yu mel ni xeme xale yu jigéen yaa ngi yàq Mario lu mel ni xeme sama gars yi balaa vidéo di commencé merci demee la vidéo nga abonné bu fekkee yaa ngi may seetaan te abonné goo bu leen fàtte yéen usé wala si benn sama promo code 21F la saabu zeri nga boni 156 000 francs lien bi naa xam si commentaire ndaxte bi muy expliqué histoire am benn affaire rek moo ma ci xaw a tuuse mooy bi bi mu avorté wax ko jëkkër ji jëkkër ji na ko damay dem soirée bi moo jeex bu dee am na man fekke yow ma yow mi di seetaan fekke yow ndaxte moo fekkee ak jëkkëram bu dee am na ñeme naa waat ni jëkkër jaa ngi toog di réccu nañ xool. si bon bien man avortement moo ma indi sama kër. bi may avorté yow boo nekkee jigéen avorté ku la war a yóbbu sa kër. sa jëkkër mhm. waaw moom la waaw. man de benn cousin moo ma yóbbu. billaay réccu na ko. Hmm? réccu na ko de tayu ko de. bi may tay ko billaay ñam naa wàññi tay ko. maa ngi toog moo ngi toog médecin baa ngi toog rakku yaayam mu ngi toog. il m'a envoyé un message dama tay damay dem soirée mu moo jeex. oh jumna na. maa ya, ngi avorté juum na Mario jumna Mario mi ngi réccu ya, billaay tay ko. ma ne ko de toi à mes côtés je viens d'avorter le message est ya là bu caméra yi fayee je peux te le montrer. lan la la tontu. moom tay ji ko mën a ci ngeen ñàkk seen doom. Mm-hmm. mais tamit nañ waxante deug fu considération amul lo fay def lan après buñ waxé ñu né mu ñul togal mu ñul togal mu ñul togal ba kañ fi xëyee déna na pourtant mu ñul na de pourtant li won na et ils continuent à vivre leur vie je ne juge personne ku nek la nga mëna a muñ muñ ko jam mhm. rek nag laa ko yéene ndeysaan jàmm rek laa ko sama gars yi Mario juum na nag juum na laa mën a parce que mënoo am sa jabar. mu avorté nga yëg ñëwoo soutenir ko nga dem soirée mu moo jeen yow danga naan nii non avorté na garaawul baa ma dem soirée rek feexal sama xol alors que xamoo yaa ngi lor sa jabar yéen nga xamante ne da am jabar man bokk bu wees parce que amaguma jabar léegi ma takk jabar man sama jabar dama koy neexal danga ko bébé ça va bébé si loo <laughs> ne xanaa ñàkk fay de jigéen ñi nga xamante ne dañuy sëy ci seen néegu sëy ngir yàlla nañ sëy rek te yàlla tax parce que benn sëy neexul benn sëy neexul bu ñu xoolee ci suñu yaay man sama yaay daa sëy sëy sëy oh sama yaay jàmbaar barke sëñ Bamba Mbacke pour man jarul jarul jarul ku nekk di di di dem di jox toor Mario. parce que billaay su ma leen wanee commentaire yi nga xamante ni nit ñi ngi koy yàq Mario yëpp Mario lii Mario li Mario lii. li mu def c'est très méchant nag c'est très méchant mais peut-être man li ma jàpp sama xel quoi. peut-être loolu mu doon def bu dee am na genre rendre compte que ni ñeme naa wànni buñ teg buñ tegoon kaamil ma dóor ko ci ne Mario mi ngi réccu billaay xam naa ni mi ngi naan bu démb doon tey lii doo am façon genre kii yii nii sëy xam nga genre débat yii nii du sama domaine léegi dañuy xool yaa oustaz léegi dañuy xool bibis <laughs> conseil bi mu doon conseiller kii bibis da doon conseiller ndaxte loo ba pare di ko yokk courage ndaxte loo courage à toi force xam nga ak courage tamit à Mario parce que Mario mi ngi dund lu met Mario gars nga yoll lu ko lu mel ni xamee. ndaxte sama mag bi mu ñal ñaal ndaxte yow ndaxte ya lay ay ndaxte mu ñaal ndaxte néegu sëy dafa metti. dafa metti dafa metti moom néegu sëy metti na trop. yàggu fa nga divorcé di nga dégg lu ne dinañ la waxal lu ne. mais lu bon dinañ la waxal sax loo deful nagam ndokk bul jooy muñal muñal muñal muñal xanaa xamuloo ni xanaa tamit yëguloo ni yëgul lan ndaxte yàlla ku mbëgg lay teg nattu jàmm bu mbëgg lay def lu mel diris xam <laughs> diris xam <laughs> na nga xool Vivis ban genre góor la bëgg xam nga nag jigéen ñi bari bëri mais dañoo wute am na koo xamante ni am na jigéen boo xamante ni dafa bëgg góor bu koy dóor di ko saaga xam nga am na jigéen boo xam ne dafa bëgg góor sama genre góor ñi dañoo bëgg bëgg sama genre góor yi xamante ne duñ dóor duñ saaga bébé foo nekk bébé je t'aime allo <laughs> ban genre góor la bëgg. loolu damay neex góor gu may dël beneen saa mu kur fay. <laughs> ma kok ko ay bébé gàññiwul mu ne ma masta loolu laa bëgg ñàkkuma jom de mais damaa bëgg góor nga xamante daf may di ma di ma tulli gis ngeen ku nekk ak sa bëgg-bëgg rek ma asma wala ma jooy ne ko bébé yang may gaañ loolu laa bëgg noonu la ku nekk ak sa bëgg-bëgg sama ah man li tax ma yërëm man li tax man yërëm Mario xam naa nga xam ne seytaane wala si góor dama am dama am droit yërëm Mario parce que Mario damaa xam ne ñuy dund parce que damaa gis commentaire gis lu ne ñu ngi koy yàq Mario bu ma duggee TikTok xool vidéo bi mais gis naa mille commentaires lu ne wax nañ ko Mario. bu góor amee ci yërmande si jigéen jigéen am yërmande si jëkkëram après sëy bi day ñeex yee mel ni sama papa sama yaay sama bu ne mère bi indil ma añ bi sama yaay day dem ko añ bi def lu ko saf papa tamit nekk paa bu baax yàlla na seen jaamu yàgg waaw loolu nekk bi doon abonné bu aimé ba beneen yoon